asalaamaaleykum yéen ñëpp ki fi teew di presse bi di rafetlu euh, jug bi ngeen ñëw te dara waral ko mooy yëg benn affaire ne xaama ñëw ci xam xam Diery Ngoné mooy kan je que qu'aujourd'hui man mënuma wax noonu ci ay euh, ci kàddu yi nga xam ne maanaam tey sénégalais dañ koy faral di ko wax mooy di wax di wax pour wax man je suis dans l'essentiel mooy liggéey donc crise bi am ci culture sénégalaise ñun ñëpp xam nañ ko et donc si j'ai décidé donc de venir pour soutenir Euh, ne la musique autrement booy xool thème bi point de presse bi mooy je ak sama ñu may liggéeyal ne leen thème du sujet bi ci point de presse bi mooy ñu waxtaan ci la musique autrement que en tant que jeune ak i un peu d'expérience dans la musique ci culture ci muy extérieur comme muy Sénégal samay parents ñun ñëpp je pense que yoon la ak sama famille ñun ñëpp accompagnement ci liggéey bi may entamé ma bëggoon nag en tant que jeune parce que ñu fi nekk ñëpp ñu bëri di yëngu ci wàllu musique euh, fii Sénégal ay jeunes leen et je pense que musique bi doon na crise bi nga xam ni man dama naan dama bëgg dama bëgg culture donc ci loolu moo tax nag ma am ambition ñibbisiwaat Sénégal pour teg projet bi nga xam ne tey mooy label Jeri Ngoné ak yeneen service yi bëggoon en tant que jeune ak képp koo xam ne tamit xamu xamu xamuguñu ko ñu ñëw ñu collaborer en tant que jeune ñu liggéey parce que je je me dis dama ñëw gis fi ay yenn euh, jikko yi nga xam ni ci musique bi dafay yàq musique Euh, je pense que tey euh, ñi nga xam ne tey mooy mbër yi sax comprendre neen booloo mais dama ñëw gis ay divergence ay concurrence yoo xam ni xamuñu nu mu tudd man lépp lu may def su ma ko gëmul lu ma ko def lu may dugg dama koy gëm dam ciy dugg ba may ñëw nag dañ ma préparé ma préparé suma bopp ñëw ma rek par hasard te li ma bëggoon moo ñu jéem a changer développer la culture suñu dëkk ndax ñi fi nekkoon ba léegi muy ténor yi ba léegi booy xool ñoo fi ne amul benn changement te dëkk boo laal ci Afrique muy Mali nigeria yeneen continent yi da gis seen musique di développé wu man nag je me dis que pourquoi pas en tant que jeune ambition rek la du du alal du dara mais ñu collaborer jéem a liggéey jéem nag arrêter les concurrents yi nga xam ne amul njëriñ amul benn du ñu yóbbu fenn te ñun Sénégal dañoo doon pays pauvre il faut que ñu comprendre loolu xam nga donc da ngay gis un jeune ba nga xam ne tey aujourd'hui tey day am métier bu baax mais day bëgg a dem Europe lay gis lu loo ko fay fay fay fay fay du doy parce que lépp fii social la donc man ni naa jéem a ñibbisi parce que nit amul lu sa dëkk te sama famille fi lañ nekk samay mbokk fi lañ nekk samay ami d'enfance donc je me suis pour pourquoi pas ñëw tamit ma sacrifié wu na am na ñoo xam ñoo ngi sacrifié pour le Sénégal ah, di dem di dee nekk ci guerre bi di garder ay frontières pendant des heures donc pourquoi pas en tant que Sénégalais ma ni nag naa ñibbi sama dëkk loo am am am am am alal mais alal pour man lii may alal ñëw sa dëkk def dara mm. mais nag may ñaan nag jeunes yëpp ak képp ku nekk si culture sénégalaise ñu change un peu orienté wu un peu suñu formaté waat suñu cerveau yi na ça me fait très mal en tant que des jeune ay wax jàppal diw bayal diw far fii far faa amuñu benn sens xam donc pour ñu mën a exporter la musique boo pare faire la musique man je me dis que depuis certaines années yi passé yëpp musique bi xamul mooy loolu xam nga ñun doon noon man voilà xale la ah, mais ba mu nekkee xale bu ndaw doon noon waxtaan ci musicien bi moo ay xoolal Papis Konaté xoolal expérience bi mu am xoolal lu mu dugal fii xoolal Dembel xoolal Habib Faye ndaw si yàlla yàlla na ko yàlla xaaree na donc ñun yooyu moo doon suñu débat mais nag débat bi dafa noon autrement donc te je vois tellement de jeunes yi nga xam ne dañoo talentueux xam nga ils ont tout ay exporter kon nag su ma ñëwee pour ñu collaborer loolu moo ma indi mais man concurrent indi ma ay defante indi ma du ma ragal nag xam nga ñaata laa dëkk laa juddoo laa yaroo laa màggee du ma nag ay dëkkoo fii ay Europe nga nekkoon loolu amul xam nga ñu ñëpp ay Sénégal leen salaam mi toog fi tey su kilifa la moo ma moo ma yar kon nag su ma euh, mënuma wax nag comme ni ma ko rek mais j'essaie de vous faire comprendre que ni liggéey moo ñor liggéey def ay événement montrer c'est la culture exporter ko te gëm naa ni jeunes yu bëri mën nañ ci gis seen bopp ba mën a yor seen kër tamit yor seen famille normal dignement que ñuy topp ci ay loo xam ni ay wax bu dul jeex la donc on aime trop discuter palabrer pour rien mm-hmm. donc su man acquis juste expérience du du damaa xam lépp mais ah ci li ma jàng ci Europe ak expérience bi mu am comme ni naan ku tukki soo amul alal di nga am expérience. donc euh, sama jaar-jaar gëm naa ni tey sénégalais en tant que sénégalais ak en tant que toute modestie euh, sama biographe euh, ci culture gëm naa ni amul kenn kenn ci sénégalais bu mu ko ci ëpple ci ni mu collaboré ak artiste muy international ak ku mun mënta doon nañu bàyyi dëgër bopp te di déglu nit ki su la conseillé rek vision rek la la conseillé. mais dalay du dalay conseil pour di la wan ne maa la gën a xam étranger bi di ñëw extérieur muy tubaab beeg wala beneen xeet moom la ñu gën a respecté en tant que sénégalais man damay gis ni loolu c'est malheureux te c'est vraiment domage que dañoo war gëmmante suñu bopp gëmmante suñu bopp jàppale na suñu jàppante rek lu ñu bëgg di leen donc foofu lay mën a yem en attendant den leen wan ni euh, on avait prévu benn concert le 7 août avec Wally Seck si Rufisque pour démarrer woon yeneen date si national bi comme que actuellement nag ak période Covid bi donc alal neex na waaye santé ko gën wérgu yaram foog naa ni amul prix donc on s'est dit ko vraiment sagement nag am ah, du gouverneur du préfet du kenn même tout à l'heure règlement waa waa Rufisque woo préfet bi naan ma lu tax ngeen annulé na ñun vraiment du ñoo bëggoon concert bi mais ma ne ko non non ñun waxtaan nañ suñu biir gis nañ ñu ñu annulé ko moo gën donc ànd ak seen yeneen artistes pour juste mettre des scènes yi nga xam ne tey ñun suñu projet définitif mooy dem ba di créer ay festival ndax man loolu laa xam je suis plutôt événementiel que même dans la production kon nag nañ jàpp ñu gën a xamante gën a gën a xam label bi liggéeyam ak option lan la bu ñu naxante xam nga du ay weccit ak affaire yooyu noonu nañ liggéey ku ci bëgg dans la culture liggéey ci na nga ñëw ñu ànd ñu liggéey ku gëm ni mën nga yokk label bi pour autre chose projet yi yëpp lu mënta doon ci culture on est près te yemuñu ci musique rek ah parce que événementiel moom lépp la musique euh, bëre même ba ci benn affaire bi nga xam ne dafa dafa manqué ci culture tamit muy bale mooy fecc bale xool lu mu deewee te ils amenaient beaucoup de monde dañ doon jël ay plus de cinquante personnes den yóbbu tey ñooñu tey ñoom ñëpp nekk nañ biir Europe toog fa parce que ndax lan parce que Sénégal dañ naan affaire bi doxul léegi nag foog ñu jéem a ñëw ñun ñu bañ a bàyyeeku xam nga jéem a ànd liggéey loolu rek moo doon euh, première euh, je pense sujet bi ah pour wan ni aussi j'aimerais bien ñu waxtaan ci la musique autrement grand ah waxtaan que ni euh, lu ñu bëgg mooy gars yi def musique jéem a rafetaat idée yi ak xel yi ak xalaat yi voilà merci et puis structure yi ak euh, les médias au Sénégal euh, merci de votre présence massive merci à mon neveu Abdou Salam Diallo toujours à côté de moi merci Tafa merci sama goro Papis Konaté sama sama gor la sama doom lay denc euh, merci Soliba mais surtout nag je ne merci euh, à Mame Cheikh mais plutôt bravo bravo Mame parce que maam Cheikh dafa ñëw ci période bi nga xamante ni musique sénégalaise ci la ëppi crise ba beaucoup de société de société de production fermé seen i bunt dem seen yoon su ngeen xoolee le paysage daanaka artistes yi avant Diéry Ngoné entre Diéry Ngoné et le label Prince Art trois autoproduction donc moom moo fi nekkoon kon da ngay dajale say ay dajale say mbokk dajale pourquoi parce que am nañ ci yow yaakaar ñu fexe ba nga nekk sur le paysage musical investir dans la production c'est pas quelque chose de facile mais su ngeen xalaatee ni kiy jël xaalisam di ko def ci kaw ci biir production am na ñu mbokkal ndeeg bàyyi war leen a mën a jox ay moyens soit jël ñu jëndi oto wala ñu tukki et cetera defu ko si ñoom war koo mën a def ci ay sëram jàppale leen pourquoi parce que les moyens sont là defu ko mu jël cet argent la investir ko ci koo xamante ni euh, àdduna moo leen boole ak milieu c'est parce que dafa am lu mu yaakaar ci biir investissement boobu euh, fi mu ko defit j'ai fait la remarque que son catalogue est très cohérent parce que nag yàlla may nañu écoute ak regard boo xamante ni dans ce milieu la ba xam nañu kan mooy kan lii wolof di wax naan su njaab yàggee rek gawar feeñ fii moom ay ay ay ay gawar dëgg ñoom ñoo fi nekk ci label bi ma gis. c'est un choix boo xamante ni qui reflète notre diversité culturelle pourquoi parce que dinañ ci gis du moderne du di moderne du folklorique toutes les sens toutes les sensibilités yoo xamante ni mu ngi exprimer ñun suñu patrimoine ki suñu patrimoine musical mu ngi ci biir label bi donc cela veut dire aussi que Jerry Ngoné s'est positionné dans une démocratie dans une démocratie et je crois que man sama wayal bopp am naa nag beaucoup d'espoir Pourquoi Parce que connaissant l'homme, hmm, tout petit à Ñaari Tali, connaissant ses, sa capacité d'entreprise, connaissant ses parents évidemment, connaissant maintenant sa capacité et sa faculté d'entreprise. Pourquoi Parce qu'il n'a pas débuté ça au Sénégal. En France, il a reçu beaucoup d'artistes. Et il a accompagné beaucoup d'artistes. Il a traité avec beaucoup d'artistes. Il a donné l'opportunité à beaucoup d'artistes de premier ou dernier plan de se mettre en évidence sur les scènes françaises. Ce n'est pas donc un hasard. Et c'est un garçon boo xam ni sa générosité est légendaire. Pourquoi? Parce que je crois que générosité mënul weesu nga nekk dans le milieu culturel. Un acteur culturel est toujours généreux parce qu'il tire de son fond pour le faire partager à d'autres. ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk sa ak sa sant di rafetlu teewaay bi di leen baalu àq di leen baal àq di gërëm yàlla sunu boroom te it di ko ñaan mbas mi nga xam ni moo lëmbe réew mi yàlla na fi gaaw génn ci barke Seydina Muhammad di nuyu sama naataangoo yi nga xam ne ñoom laa fi fekk ñuy yëngu ci li may yëngu di jiital ci nuyoo bi sama nijaay sama xarit gise pen kàddu yu rafet na te it sa taxawaay rafet na ndax fu aar bi amee lu nu sooxe fu nu gestu dañ lay gis yàlla na nga yàgg di nu taxawu di joxewaat nuyoo di ko teg ci loxo ki nga xam ni mooy musicien bu mag boobu la arrangeur Papis Konaté di jël nuyoo bi di la teg sa loxo nga joxal ma ko sama rakk artistes yi ak sama doom ak sama jarbaat yi nga xam ne ñoo fi nekk di nuyu tout la presse si présente ce soir di leen xamal ni tey sunu teewaay dara matul ko dara warul ko lu dul ñëw taxaw koo xam ni ci réew mi la juddoo màggee fi yaroo fi di it bokk ci giiru ngéwal di aar di maam Cheikh mbay mi toog tey dama fi toog place su nijaay toog fi place su artiste toog fi place mbokk maam Cheikh mii ku dugg seen kër di fa gis artistes yu mag ki may njëkk a cité mooy Aïcha mbay moom mi nga xam ni moo woy xalaas yàlla buur la keneen ki ma ci teg di Njaga mbay mi nga xam ni ci man mii la nekkoon di tëgg sabar maam Cheikh mii tey doon producteur ba may lëmbe réew mi di tëgg sabar ci koñ yi moo doon téye asiko di ko yëngal sama ginnaaw barke Serigne Saliou waaw dafa ma di fàttali. dëgg la di ko yëngal ci ginnaaw tey mu doon dem ba nekk sama producteur moo tax bu kenn xepp kenn ci àddina boo gisee xale yi di jaar ci man yàlla di di teel di leen defal teraanga. c'est parce que yéene bu nit ki li am la sànq wax nga ko ci sa parole euh, rafet xol dafa dafa dafa doy waar ndax mën nga produit doomu aadama fayeeku ko xaalis mbaa ngeen ko danga may defal dara mu génne mbir ma du dox parce que yërmande am àndu ca waaye xale yi nga gis xam ne mënuñu amuñu nga jàppale leen yàlla daf ci dugal yërmande ndax yërmande ba nga xam ne moo jëme ci yow li nga def yombul jël sa alal dugal ko ci loo xam ne wóorul na nanga koy jot ndax qu'on la vérité la musique ne marche plus et c'est décevant c'est décevant bu njëkkoon comme li nga ko waxee sànq Sorano daf doon jël bale li Linguère yóbbu la ñu def tournée internationale am ñu dem toog dinañ toog ndax xam nañ bu ñëwee fii duñu am lu mu dundalee seen njaboot gis nañ fi artistes musiciens yu bëri yoo xam dañ dem toog mais loolu ñi yor état bi yor la culture ñoo war a xam ni musique du fo comme ni ñu koy waxee musicien day daan dooleem du sàcc du agressé du escroqué day def carrière dimbali ay doomu aadama jël ay employé ñooñ di mën a tey teral seeni ndey ak seeni baay donc lu xew ñu ne musicien la ñu njëkk a teg c'est pas normal musicien citoyen sénégalais la bu voté jotee dañuy def bu rassemblement amee lépp lu nuy woote ñoo ci njëkk donc da dafa jot ñu jox leen vraiment seeni cër kii nag di sumb lii nan ko jàppale ndax doomu réew li la mënoon na jël li mu am dem bitim réew mbaa feneen investir ko feneen mm. mais dafa investir pour doomi réew mi jël ay xale jël ay xale jël ñoo xam ne mënuñu dara amuñu dara jël alalam def ci ñoom dugal studio fay ay répétition fay ay enregistrement def clip fay lépp mu fay yàlla rek moo la mën a fay barke Sëñ Saaliw man nag label bi yaakaar naa ne maa ci njëkk ndax defe naa depuis six ans ngi nii talumoon sax album ndax dama ne woon vraiment jaratu ko fi may war a jouer maa ngi fay jouer toujours je me produis deux fois par semaine maa ngi def ay émission télévision parce que toujours sama aar li ma permettre maa ngi koy jox askan wi maa ngi ci télé yi bu nu invité artistes yi ma wax li nga xam ni mooy mooy mooy sama expérience ci ci ci culture xale yi nga xam ne maa leen jàppale yàlla rus ci ba tey ñooñu nga xam ne ñoo nekkoon ci man ñoo nekk au devant de la scène maa ngi koy santé suñu borom ñëw naa def ak moom album Papis Konaté moo arrangé yëpp ma nar nag xëcc comme li mu wax ni concurrence warta am ñun nag Sénégal dañu bëgg jogante aawo ñaareel Balla Gaye Modou Lo Thione ak kan Modou Lo ak kan Viviane ak kan d'accord mais dafa war nekk loo xam ne lu loyal la warta am xaayoo warta am ŋaayoo warta am xuloo warta am xeex mbër yi nga xam dañuy dóorante sax bu jeexee da ngay gis ku nekk fóon sa morom donc loolu tànk deñul ci musique bi duñu mën a dem te jàmm am jàmm yàlla mën a am yërmande ci li ñuy def donc ñëw naa indi album bi morceau bi ma génn ko tuddee ko jàmm ak salaam mu ngi ci YouTube bi ñëpp gis nañ ko donc yeneen artistes yi tamit ñu ngi ci donc on te bon vent di la ñaanal yàlla may la fanu gudd ak wér gu yaram doom nga joo xam ne sa ndey gërëm na la sa baay gërëm na la askanu ngéwal kenn jëppiwu la barke borom Touba mën nga ñëw de chiq si tu vois moi mais tu l'as pas te boo ko fi defoon daan la fiy bàyyi nit ñi ku ci nekk sa bopp nga bëgg balaa ngaa bëgg kenn da ngay bëgg sa bopp donc je vous remercie et euh, à tout à encore pour les questions hein merci di ñaan jàmm ñi ñu jiitu yàlla ne yàlla yërëm amiin rawatina suma yaay ñi nga xam ne ñoo tëdd ci hôpital yi na leen yàlla yëkkati ñu nekk ci prison yi yal na leen yàlla génne ñu bañ fa dellu di ñaanal sama nawle artiste yëpp jàmm maa ngi nuyu mbooloo mi ma fekk sama baay bi nga xam ni wax dëgg yàlla ku ne xam ne ni sama baay la di nit ku baax la nit ku ma jàppale muy Abdou Salam Diallo ndeysaan maa ngi lay gërëm di la sant di gërëm suma baay Papis Konaté di nga xam ne moom lañ ma bàyyi la mu yàgg jàpp sama carrière ba du fay sax studio maa ngi koy gërëm di ko sant di ko ñaanal gudd fan di gërëm suma baay gise pen bi nga xam ni lu mu dégg rek wala bu toogee sax parfois sa duma ko woo moo may woo xas ma ne ma lii du barke boo toogee del woo sa bàyyi kon maa ngi koy gërëm kooku mu ngi lay bëgg a teg ci yoonu njël yoonu baax mm-hmm. di gërëm waa Jiri Ngoné production yëpp di gërëm suma xarit Pago mi nga xam ne lii yëpp mën naa ne moo ko waral ak Ablaye Dieng di gërëm maam Cheikh bu baax a baax a baax a baax ci confiance bi parce que yenn responsabilité la ak confiance waaye ku ma gëm la koo xam ne wóolu na sama talent koo xam ni xam na manquement yi nekk ci man ba tey mu war lii am yaakaar naa ni yaa cinq ci ginnaaw suma bàyyi Papis Konaté moo ko njëkk wax su may wax mu ne ma Soriba intéressé na ma waaye dama bëgg a bàyyi ba ñëw installé wu yàlla tudd ko ci Paco mu ànd waaye comme dama di ndaw te defal ma def waxal ma wax laa xam yaakaar naa du ma guddal damay wax ni rek ni Sénégal surtout di lancer appel ministre de la culture parce que boo demee lii di Nigéria lii di Côte d'Ivoire lii di Tanzanie ministre de la culture ba dafa xool jeunes yi nga xam ni am nañu talent xool producteurs yi nga xam ni bëgg nañu seen réew te ñi ngi investir mu waxtaan ak ñoom def budget jàppale leen ba ñu mën a exporter musique bi label yëpp a ngi daw te musique mooy réew culture mooy réew culture bu deewee ci réew rek du développé touristes yi dootuñ ñëw étrangers yi dootuñ ñëw te dootuñ day mel ni sax dañ ñoo fàtte ci monde bi te yaakaar naa ne instant yi Sénégal ci ci culture avant ndaare la ñu jël comme ku ci mel ni maam Cheikh mii ñëw taxawul taxawal Djeri Ngoné production xaar ju kenn ñëw indi xam-xamam expérience am ànd ceeg ay ténor parce que plateau bi dafa riche kon ministre bi yaakaar naa ne mi ngi ñuy seetaan li ma koy lancé appel mooy na woo jëmm ji mu waxtaan ak moom parce que am na projet xuma la Sénégal rek waaye international bi yëpp projet mooy ñu exporter culture sénégalaise projet mooy chômeur waxuma mun na ko fi dindi de mais mu wàññeeku parce que musicien yaa ngi daw mënoon na ñëw rek ne waykat yi rek laay jël mais defu ko musicien yaa ngi ci biir mi ngi tëgg làmb mi ngi jàppale jigéen ñi ba taxawal jëri ngoone gër la kon kooku ku ñu jaral ñu jàppaleel ko comme li mu wax rek ñëwuñu buñ ko pour concurrence on di dit ça neuf dans les artères de l'industrie musicale ma leen di ñaan rek ñu tàllalaat suñu loxo autorité yi nañ ñu jàppale ko parce que bu ñu ko jàppalee jàppale nañ Sénégal gi yëpp ñu avancé waaw man moom maa ngi ci ginnaaw sama ginnaaw papa yi waaw ah, fu ñu joxoñ rek yaakaar naa ni foofu la wasalaam maa ngi leen di gërëm di leen sant jërëjëf euh, maa ngi maa ngi nuyu ñëpp ah. sama doomu ndey. Mhm. Salam Diallo. sama goro. ah et puis euh, ñii toog ñëpp artistes yi ñëpp ah sama doom yee nga xam ne ñoom Sori Ba El Hadj euh, ak journalistes yëpp ah vraiment ñu ngi félicité thème bi nga xam ne moom la euh, maam Cheikh andi <coughs> parce que je pense que thème bi am na solo trop te foog ñu seetaat bu baax. dégluwaat bu baax li mu bëgg a wax parce que loolu moom moom nu fi andi loolu c'est important parce que quand il dit la musique autrement mooy lan waaw ku nekk nag maanaam dina laaj ak ci dégg-dégg aussi je pense que après moom dina expliquer la musique autrement mais euh, connaissant un peu ak ci expérience bi nga xam ne jot naa ko gis mu wan ma ko ak ay jaar-jaaram ak ci sama expérience ci laa mën a wax euh, je vois que c'est vrai que Sénégal musique dañ ko dañ ko dañ ko informel waaw c'est pas professionnel donc la musique autrement man pour man euh, maam Cheikh veut dire qu'il faut professionnaliser ça waaw tey euh, sànq maa ngi koy wax Marie je pense ma ne ko la musique autrement tey jii nii mam Cheikh bu waxee la musique autrement ba ñëw ba teg label euh, musique sénégalaise li salaam di wax ñëpp di wax sax tout le monde sait que tey jii nii exemple nga jël benn artiste nga dugal ko studio fay studio fay musicien def clip le minimum un très bon single dina la dina la coûter benn deux millions mm-hmm. ça moom c'est sûr xam naa ci dara mais deux millions boobu nan nga koy rattraper ci artiste bi <laughs> il faut se poser la question c'est difficile ah artistes yaa ngi fii alors ñëpp bëgg nañu produire leen mais artiste kan kan mooy génne 2 millions dugal ko noonu rek te xamul ëllëg kañ la koy kii hmm. donc Mame Cheikh Mbaye oxygène la aussi ci musique sénégalaise parce que il est brave nag waaw loolu nañ ko tàcc waaw man nag par expérience euh, laay waxee ah parce que j'ai travaillé avec c'est vrai beaucoup d'artistes mais tey musique sénégalaise foog c'est vrai que waxam bi muy wax ñu arrêté concurrence yi parce que daf ñuy delloo ginnaaw waaw kooku ñëpp ko gis même ci artist yi même ci fans yi foog ñu xam ni un artiste c'est l'artiste sénégalais muy diw muy muy salaam ak muy keneen du artiste ghanéen du artiste kii donc il faut ñu xam ni on n'est pas des concurrents ñëpp ay adversaires nañu rek dañuy def dugg studio def lu baax. Mhm. bon maintenant professionnellement waaw professionnellement ci li Mame Cheikh euh, di expliquer par rapport ak les productions ak les concerts tey jii nii Ndiéry Ngoné dañ leen di féliciter. man ba ma ma kii man mën naa wax ni euh, mënoon naa wax ni concurrent am laa mm-hmm. Ah. Mm-hmm. alors euh, les studios ñëpp benn nañu Bakar mi ngi nii il a studio mm-hmm. man j'ai mon studio keneen ak keneen bu ma amul bu ma mënut liggéey yenn liggéey yi damay ne ah woo leen Bakar et c'est comme ça un artiste tey bu amee concert bu mu war a te mënu ko jouer mu ne ah tey mënuma jouer concert bi mais maam maam Cheikh je pense que euh, Salam Diallo war na ko mën a jouer mm-hmm. et c'est ça mm-hmm. loolu mooy tax musique bi di avancer parce que mm-hmm. comme li euh, Soriba wax rek tey jii nii suñuy concurrent waruñu doon tey ci biir dëkk bi concurrent yi tey dañu war a xool ci nigérien yi parce que ñooñ seen musique dafa dox alors ñooñ nañu war a xool seet fan nañu jaar mhm. et la musique autrement foofu la war a loolu mooy chemin bi wasalaam di baal ñëpp ax di ñaan yàlla pandémie bi nga xam ni moo lëmbee réew mi yàlla jële ko fi parce que boo xoolee temps yi dese yi bëri na trop mhm. nit ñi sono nañu mhm. xam nga li des nag mooy ñaan suñu borom lii nga xam ni moo lottal Sénégalais yàlla yàlla jële ko fi mais na tey man boo leen gisee sama teewaay fii yàlla dogal na ni am na yu bëri yuy xew yoo xam ni man duñ ma si gis mais tey soo gisee ma ñëw dama ñëw ndax sama rakk bi muy maam Cheikh Jéeri Ngoone production mu nekk booy bu am jom kii man tournée yi ma def Europe bu fekkee ni mat na vingt dix-huit yëpp moom moo yóbbu ànd nañ fu nekk ci Europe mu nekk booy boo xam ni soo ko fekkee kaaw ba boo ko fekkee Europe si ngay xam ne kii jàmbaar la hmm. liggéeykat la te nit ku jub la parce que man dama bëgg nit ku jub te maam Cheikh lépp loo seq ak moom loolu la ñu waxante fii Sénégal su la joxee sa avance soo leen yeggee même su fekkee ni li muy def doxul sax hmm. dina dem taaba taaba ñëw génne sa xaalis jox la ko kon su amee lu mel nii dafay yell ñun ñi nga xam ni yàlla dafa dogal ñu bokk ci réew mi nekk ci musique ba ñëpp xam ñu ci ñu ñëw defal ko ay témoignages yu baax parce que c'est quelqu'un boo xam ni ci ñi ko xamul mooy man ku ma xam-xam ni duma ma ni kenn gis naa yàlla te gisuma yàlla hmm. dëgg dëgg neex yàlla hmm. mais ku am jom la te fi musique rafle la ñëwee hmm. parce que musique dafa rafle soo xoolee dix dernières années yi ñi fi génne album yëpp autoproduction la ñuy def ñooy produire seen bopp. même concert spectacle yeeg yëpp nit ñi ñoo koy defal seen bopp. kon nit bu demee am ay moyen ñëw tàllal loxo nit ñi di leen jàppale état moo ko war a njëkk a gersu jàppale ko. mooy tey spectacle yi nga xam ne daf koy def mooy mu am ay sponsor xam nga fii bu ñu waxee jàppale rek nit ñi dañuy jàpp ne da yor mbattu ñëw taxaw. pour ñu lay may xaalis. nit ki ni ñu koy mayee xaalis mooy am na label de production engagé ay artistes sénégalais artiste boo gis au moins il a une trentaine de personnes boo xam ni mm-hmm. moom moo leen di fay mm-hmm. parce que musiciens yi muy joué dina mat minimum quatorze mm-hmm. staff beeg ñi ci nekk ak lépp tuutoo boo xoolee day nekk artiste boo gis rek moom société la donc tey ki ngay engagé soo ko joxee sponsoring jàppale ko société nga jàppale. Hmm. mooy li Macky doon wax temps le passé bi fi dëkk bi yëngatoo. Hmm. mu ne jeunes yi comprendre naa seen message. message yooyu nag lii si la bokk production musicale. Hmm. parce que borom studio bi dina liggéey artiste bi dina liggéey. bu concert amee am na ñuy jaay foofu ndox yu sedd am na ñuy jaay foofu ay bagages yooyu yëpp dafa nekk ci affaire yi nga xam ni. ci production musicale dafa bokk ci li ko yóbbu mooy comme les promoteurs de lutte rek li ñuy def donc nag Diéry Ngone nit la koo xam ni Sénégal dañ ko war a teg dañ ko war a jàppale parce que dëgg dëgg neex yàlla encore une fois fi musique rafle dëggantaan si la ñëwee te léegi booy artistes yu bëri amuñu moyen bëgg nañ génne ay single bëgg nañ génne ay album bëgg nañ def ay tournée mais amuñu moyen mhm. donc nag nit su ñëwee maaseeg ñoom jamono dem ñafe laay fam en Europe te ñëpp xam Europe nu mu méttee mu ñafe ba am mu ñëw mu ne sama culture dëkk laa bugg a jaay mhm. xam nga donc dañ ko war a teg loxo dañ ko war a jàppale mhm. tey loolu moo tax ma bàyyi sama yitte yëpp jóge Rufisque parce que ñëpp man xam nañ ñibbi naa Tëngéej laa dëkk léegi. Mm-hmm. Mm-hmm. mais fa laa jógee ñëw ba fii pour ñëw soutenir ko encourager ko jàppal ndax dompet sax si sot la bokk. Mm-hmm. merci beaucoup.